nga xam ne ni tool bi ñu bokk nun ñépp muy toolu lislaam bi kenn ku nekk gis na ne waar wi mu ci féetewoo bay na ko ba mu jeex ba bayaale ba bayaale sunuy waar yal na yàlla guddal aw fanam te su fekkoon ne kilifay diin yépp dañoo taxawoon taxawaay boobu toolu lislaam bi booy ak mbooy du fi am kon yal na yàlla fayal na ko ah di nuyu tamit suñ bokki waa gine yi suñ tuddee alxaasim yaakaar naa tudd nañ waa gine yépp ndax daara Ahmad Sakhir Lo bu bun kenn mënu koo tudd te tuddoo Guinée yaakaar naa ne suñ doom yële nga xam ne ni ñoo mokkal alquran suñ taxawoon tey di wax turi yi yaakaar naa ne suñ ci génnee waa Guinée suñ ne yenn yéen waa Guinée jóg leen yaakaar naa suñ jógee jotaay bi dana yaraax kon ñooñu ñoom Mouhamed ña ngi la woon démb te tey dikkagul ba léegi tey lañ gën a jàpp kon ñoo ngi leen di jagleel ak nuyoo suñ bokk waa Guinée yépp bàyyiwuñu kenn nuyoo yooyu nag ñoo ngi koy wax ci turu sëñ Maxtaar mi nga xam ne nii moo jiite daaree kokki moonu fi yebal ma ànd ak délégation bi ma àndal te ñoom ñëpp gën maa rafeti wax gën ma koo le waaye nag dañ maa cëréle rek ne ma jógal nga wax kàddu yi kon lu ci dëng ci man la waaye du ci sëñ Maxtaar mi ma yebaloon du ci délégation bi ma àndal du nuyu tamit suñu mag suñu wëlëre kóllëre rek Mouhamed Niang kóllëre rek daara ji kee xam guddi ak bëccëg ma ngi taxaw di liggéeyal daara ji mu ñii may bëgg a tudd te le préfet Pape mii kenn jiitu ko ci waaye Ousmane Camara it yaakaar naa ne liggéeyam ak sëñ Boubacar Camara euh, Boubacar euh, Diallo ak basiiru ture ñi nga xam ne nii guddi ak bëccëg ñu ngi liggéeyal daare ama saxiloo bu bon ñooñu mënuñ leen a ñàkk tudd ak jigéen ñooñu ñu waxoon léegi nga xam ne nii ñoo féetewoo at mu nekk njëkk ak teraanga yooyu nga xam ne koy def ak képp ku fi teew Cheikh Mohamed jaa jëf jaa jëfati Mohamed maanaam sigil nga diine ji dolli nga diine ji ndam sa taxawaay ci diine rafet na yal na yàlla guddal fa fan te lii ngay def day su fekkoon ne ñu jógoo ci daara yaroo ci daara màgge ci daara yépp dañoo amoon taxawaay boobu kon mbir yi dana soppeeku lool lii ngay def danga nga cee ànd ak yéene ànd ci jëf ko ànd ko sellal te xalaatoo ci dara wutoo ci dara bëggoo ci dara lu dul ngërëmal sa loolu nag mooy ne li ngay wax ak di ko muy Cheikh Ahmad Saxir loolu day wane na yow fa mu tegoon tànkam rekk nga teg sa tànk te teggiwoo ko te teggiwoo ko te képp koo xam ne kii daa yor daara tey ci réew mi muy kokki muy feneen mu fan ma doon war naa xoolaat ci yow war naa am ñëwaat ci war naa am lu mu jànge ci yow yor daara laa wax dama ne ci réew mi war naa am war naa am lu mu jële ci yow war naa am lu mu jànge ci yow muy kum mën a doon lii ngay jëfe nag noonu rek la ki ngay teg bët muy Cheikh Ahmad Sakhir noonu rek la daan doxale yaakaar naa ne ñi nekk ci tànk bi te jànge kokki benn ci Mohammed mi ñoom ñëpp yàgg nañoo gis sëñ ma saxiir di yëkkati ay neexal di ko jox xale yi mën a jàng ak ñu rafetum jàng di leen ko neexale wala ay téere yu muy jël téere hadis wala téere fiq ku ko mokkal kenn ku nekk ku neexal la te jamono jooja mu ngi ko tàmbaloon ci saa boo mokkalee téere sàngam mu jox le mii si mburu te booba mii mburu am na valeur ci mun lool lii sa yéene ci xale yi lii nga def ci xale yi soññ leen ko wax ko parents yi tamit ci teraanga yooyu la loolu rek mooy li war am loolu rek mooy li war a am ndax Cheikh Ahmad Saxiir day mënoon naa am àddina li ci biram waaye wutu ko ak njabootam muy ay soxnaam ñi ko gën a jege ci wàllu njaboot ci wàllu njuréel amu ci kenn koo xam ne kii doon na nga ci moom ab dërëm di wax te gën a ñàkk solo ca njaboot ga bi mu tëddee feebar tañ war koo yóbbu hôpital ñu dugg néegam wër wër bëgg ko bëgg lu luñ ko sànge suturaale ko ko amu man mii lañ dugg sama néeg jël mbaat bi ma fa nekkoon te moom moo ma may moom la sango bañ koy yóbbu hôpital bi mu faatoo it mbaaj moo may lañ ko sànge ak njabootam bi mu génnee àddina kenn ku nekk xëttewoo yaakaar am nga luy doon looy doon ci moom bi ñu seetee lañ fekk ci poosam aw weccat la boo xam ne paasewul ñeent fukki dërëm ak juróom-ñaar ay soxnaam taxaw ne lan mooy pexe sëñ Maxtaar ne leen xanaa mbu mi mu saloon tey te moom rek la am ci mbubb xanaa moom lañu dagg jox leen ñu xotte ko ay morso kenn ku nekk jox la Mohamed kon yow maanaam fa ki ngay roy sëñ ma saxir mi ngay roy def ko muy sa kilifa fa mu tegoon tànkam rek nga teg tànkam sa tànk kon yal na la yàlla jàppale lii nag kenn ku nekk ci nun war nga cee jànge war nga am loo ci jële